constitutionnel siiwalee listu ñaar fukk ak benn candidat à la candidature yi nga xam ni ñoo bëgg a dem ci joŋante élection présidentielle ay recours yu fasantikoo dal dañ tegu ci taabalam ñu toll ci daanaka ñeent fukk ak benn loolee la ko waral bëri na bokk na ci ay doublons externe ak interne. lëndëm gi ñu jàpp ni fichier électoral bi lëndëm na ko waaye itam ay parrain yu ñu mënul gis ay candidats ay électeurs ak i dossiers yoo xam ni matul benn yoon mbir mi narul yomb benn yoon ci booru conseil constitutionnel mi nga xam ni nar naa saytu dossier yi lee daal di joxe ndogalam bi nga xam ni mënul am benn appel ndax mbetteel dina jip foofee ca conseil constitutionnel li wérte wóor mooy di ni ay kandidaa yu bëri jamono ji bëgg nañ bokk ci raw gàddu gi di xaar conseil ñoo yor organisation ak supervision bu élection présidentielle bi léegi ci seenub dégg-dégg sage yu conseil constitutionnel war nañoo jël dogal boo xam ni dafay indiwaat dal ci élection présidentielle bi ñu dëgg la liggéey boobee di liggéey bu metti boo xam ni dana laaj jot waaye itam ñu tënku ci droit vider bépp recours boo xam ni teg nañ ko seen table laata ak ginnaaw campagne présidentielle faaw itam ñi nga xam ni ñoo déposé recours amuk dal lu ci mën di ama dogal yi nga xam ni moo nar a tukkee ci conseil constitutionnel moo mën a indiwaat jàmm ci langu politique yi nga xam ni bëri nay meroo ñàkk wóolonte waaye itam ay guerre de positionnement ngir nekk juróomeelu njiitum réewum Sénégal